dañu jappalé adel, fexé ba collectivité territoriale yi ci li ñuy naan Casamance naturelle ñu xalaat ba doxal li ñuy naan observatoire bi nga xamné ne jumtuwaay boo xam ci li nek ci gox yoyu ñu xam lan la ci mbirum kom kom ci mbirum jang ci mbirum wergu yaram ci mbirum environnement ñu fexé ba xam ko suñ ko xamé ñu xam ni lan mo ci baax lan mo ci soxé ñu jëm ci li ñuy naan planification seet nan lañ koy nan la ñuy taxawee nan la acteur yëpp booloo ba jàppale collectivité territoriale ñu mën a faj jafe-jafe yooyu li ci sooxee ba ñu mën a aussi euh, développer collectivité aussi ñu seet ba ñuy suñuy jëf sooy jëf il faut nga am saytu il faut nga seet ndax li ngay jëf mu ngi wéy ci li nga bëgg mu ngi saafaraal jafe-jafe yi walla yaa ngi génn ci yoon bi nga xamne ne waxtaan nga ko ak ñi yoyo, ci gox yoyu ak aussi ñi ko ngank moy xam nga fal nañu len ñu yor collectivité territoriale ñuy bu dé amna lu ci jubul ñu jubanti ko suñu paré nak ñu teunk ko parce que amna ñu ay information amna ñu ay ay ay firnde yo xamne ñu mën ko wasaare wax nit ni ah li ngeen ñu santone li ngeen waxone li lañu am ci copar fi lañ ko dugal ak li la jur lolu tank amul defe naa dañuy daal di di wéy rek te duñu xam fu ñu jëm.